mbokki kolobaan Colobane Signy mbokki département Gossas mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci tur kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant may nuyu jigéen ñi nga xam ne tey ñoo waral bis bi ñoo ko njëkk am initiative bi ba pour ñu def meeting d'investiture meeting de sargal à l'origine aujourd'hui ñu def ko meeting meeting d'investiture fii pour la mairie de Colobane tey suñu suñu xol dafa sedd suñu xol dafa tooy ndax bis bu mel nii ci analu politique bu Colobane mësta am c'est la première fois tey jigéeni Colobane ànd ak commune kolobaan yëpp taxaw kon sans hésiter sans ambages maa ngi leen di nangul investiture boobu maa ngi nangul investiture u jeunesse maa ngi nangu investiture u jigéenu Colobane maa ngi nangu investiture cadre u maa ngi nangu investiture u sage Colobane maa ngi nangu investiture u corps de métier wu Colobane maa ngi nangu investiture u population wu Colobane pour que demain au soir du 23 janvier 2022 ñu yéen jël ndam li fii ci kolobaan incha allah ci mairie Colobane loolu nag pour mu am ànd takku nekk benn moo koy maye waaye leneen la ci des mooy euh, sant lay doon d'abord ci président de la république ci réalisation yi nga xam ne def na ko ci département bi ak Colobane fii santit suñu mentor ci politique bi muy notre frère Mohamed Boun Abdallah Dionne ci moom it résultat yu baax yi nga xam ne am na ko ci biir département bi mais également suñu président aadama Diallo ci franche collaboration bi nga xam ne am nañ ko te lu bëree bëri bëri ci réalisation yi ñu def mu jaar ci conseil départemental bi à travers moom ma ciy sant aussi tous les conseillers départementaux incha allah dinañu àndandoo pour relever le défi de l'émergence les choses ont changé les choses au changé te euh, jàpp naa ne le président de la république le message bi nga xam ne jóge na fii ci jigéen ñi jógee ci ndaw ñi jógee ci kilifa yi jógee ci euh, euh, sàmmkat yi baykat yi taximaan yi chauffeur yi ak corde de métier yëpp message boobu nañu ko bàyyi ak xel ngir bu ëllëgee monsieur le président mérité wut di am Euh, beneen résultat bu dul gagné fii ci Colobane te kom nañu ko waxee woon fii je gagne ou je gagne. kon ñoo ngi koy gën a euh, woowaat di ko gën a wax ne réew mi politique dafa bëri ñaari façon dafa am ñoo xam ne c'est des lobbyistes qualifiés yoo xam ne dinañu wax lu nekkul dinañu wane lu nekkul. uniquement pour am ay ndomba tànk wala pour jiite fekk na population bi tànnul nañu déglu population bi fii Colobane population bee tànn te weddi gis ñun nag ñoo ci ginnaaw population bi parce que président de la république moo ko daan wax euh, euh, la patrie avant le parti ñu it la population avant le parti nañu déglu bu baax a baax a baax population bi population bi wane na boppam tey bi ñu déparé ba bi ñuy agsi fii ci biir ku fi ñëw tey ku nekk sa yaram daw na li ko waral dafa am yëg-yëg yëg-yëg bi mooy kolobaan dafa nekk ci state boo xam ne war a mën a développé war a mën a suqeeku suqaliku ndax am nañu ay doomu Colobane ci gox-goxaan yu nekk am nañu ay ressources humaines de qualité yaakaar naa ne ku gis li fi wax tey des professeurs d'université des ingénieurs ay euh, nit yi diine ay nit boroomu xam-xam ñooñu ku leen yaatal ku leen permettre ñu def ci seen gox dinañu suqali suñu gox te ñun dañoo taxaw pour àndandoo pour dalal xelu ñoo ñit que dañoo àndandoo pour am un cadre fédérateur boo xam ne dinañ ci mën a suqali suñu gox c'est possible kon ñoo ngi woo suñu mbokk politiciens yi nga xam ne ñoo ngi ci gox bi à travers lequel Benno Bokk Yaakaar sama frère yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar euh, monsieur le maire mon frère Ousmane Wade mon frère Macoumba Loum nañu ñëw ñu àndandoonu liggéey nañu dépassé xuuloo yi ak xeex yi ak xiiroo ak ŋaayoo amul njariñ Colobane moo soxla te Colobane dafa ñoo soxla nañu àndandoo ngir suqali kolobaan suqali département bi le aujourd'hui lii bu ñu rombee stade bi bu ñu rombee boo sàggantul mën naa gën a bon mën naa gën a ñaaw nañu àndandoo bokk ndey bokk baay autour de l'essentiel muy suqali Colobane ñu àndandoo ñun ci loolu la ñu mën a mas a euh, taxaw te langage de vérité la ñu mas di wax askan wi te langage de vérité boobu dëgg moom la ñuy continuer di wax ak ñoom woote bi ma woowee tey woote bu dëggu la ci man ndax bi may tàmbali lii kenn ku si nekk woo naa la téléphone wala ma envoyé la message ñii nee nañ ma ils sont à l'extérieur ñii xamal nañ ne mënuñ ñëw waaye ñii ñëw nañ mais ñoo ngi tàllalaat suñu loxo ñëpp pour ñu àndandoo may remercier nag yeneen parti yi nga xam ne tey jii ñëw nañ teew fi ñii teewal fi seen i parti ñii teewal fi seen i seen boppit euh, ñii nekk ci parti Benno Bokk Yaakaar ku ci mel ni waa réew mi euh, ñi nekk ci yeneen parti d'opposition mais fii Colobane la dañoo soxla suñu ko ñu am dépassement que ne ñoom dégluwuñ lu parti wax ca kaw dégluwuñ ay opposition ca kaw li ñu leen li leen soxal mooy fii donc ci biir waa PDS ñoo ngi fi yeneen i parti d'opposition ñoo ngi fi te dañoo taxaw pour àndandoo pour changer lii Colobane li fi nekk loolu nag defuñ ko ci dañoo bëgg rek changé wala dañ ne rek amaat moo leen neex déedéet dañu ko def ci dañoo am yaakaar ci ñun dañoo am yaakaar it ci lu ñu leen jot a te loolu ñu leen jot a wan ko fenn lu dul ci suñu qualification ci suñu expérience ak suñu relation avec les ministères les projets et programmes ci politiques doonu xiiroo doonu ŋaayoo doonu ne man maa war a jiitu da ngay xam fi mbir yi nekk ak fi mbir yi féetee ak nooy dox ba àggale fa ndax état amul benn nag état boo xam ne li mu yor léppam dafa mat amul fii aussi lépp matut donc dañuy am un budget national jaarale ko ci ministères yi ci projets yi ci programme yi commune bu ci nekk war nga am say doom yoo xam ne ñooy jóg dem si ñoom ci loolu ci la ñu jógee dem uti réalisation yi ñu fi tudd yu bëri muy forage ca Gaynde Mbaar muy CM ca Gaynde Mbaar muy adduction d'eau ci village yëpp muy les moulins muy euh, les fourne jàmbaar muy finance des femmes muy assenissement à travers l' assainissement à travers euh, ONAS muy euh, centre socio collectif bi nekk biir Colobane muy l' électrification rurale muy le FERA autant de projet et programme yoo xam ne dañoo dem dox uti ko dem ci collectivité dem ci projet yi ak programme yi pour indi ko fii ci Colobane ñu bokk ko ñoom loolu mooy li nga xam ne moom la ñu soxlaa maire moom la ñu soxlaa doomu dëkk moom la ñu soxlaa képp koo xam ne da jóg pour liggéeyal sa gox